merci beaucoup mon frère euh, et homonyme euh, Gérard. Et je ne sais même pas s'il faut remercier nos frères et sœurs du, du mouvement Frappe France Dégage d'avoir bien voulu abriter cette conférence de presse. Euh, Peut-être que même je n'ai pas besoin oui, de, de, remercier parce que c'est... Nous n'y a Mais avant d'entamer mon propos, je voudrais Euh, profiter de l'occasion pour réitérer encore nos condoléances à notre frère et camarade compagnon de lutte Guy Marius Sagna euh, qui vient d'inhumer son papa comme vous l'avez tous su. Euh, on l'avait fait mais on profite aussi de l'occasion pour lui réitérer nos condoléances et toutes nos prières pour le repos de l'âme de notre défunt père. Alors Je vais commencer par la conférence. Je vais commencer euh, d'abord par faire un petit rappel qui est important. Un rappel pour dire que... Non, c'est pas beau Un rappel pour dire que depuis que le dossier, depuis que l'affaire euh, Kilifos Simon a éclaté, vous avez tous vu la posture que non seulement le mouvement Y'en a marre a eu en tant que mouvement auquel ils font partie, un mouvement dans lequel ils militent depuis dix ans pour des causes hautement citoyennes, des causes démocratiques et des causes qui, en fait, pour la prise en charge des préoccupations de tous les citoyens sénégalais. Donc dès que l'affaire a éclaté, vous avez vu la posture du mouvement Y'en a marre. Et au-delà du mouvement Y'en a marre, le Frappe France dégage et d'autres mouvements aussi qui sont des frères euh, de Kilifeu, qui sont des mouvements frères à nous aussi, cette même posture qu'ils ont adoptée, qui est selon nous la posture qui sied, parce que c'est ça la posture euh, républicaine. Parce qu'on est des mouvements qui dénonçons, on des mouvements qui exigeons, on est fait partie de ceux-là qui avaient salué l'attitude de de, de Momodou Sek quand il était à l'Assemblée nationale et qu'il a été cité dans des choses, il a, il a démissionné le temps qu'il soit blanchi pour revenir à l'Assemblée nationale. Ça, nous, on l'avait apprécié. Et de la même manière, vous avez vu la grandeur que Kilifa a eue déjà en suspendant ses activités euh, du mouvement Yanamar et quelque chose que le mouvement Yanamar a a, a accepté et au-delà de ça avait demandé à ce que la justice sénégalaise se saisisse de l'affaire pour que la lumière soit faite. Et ça a été une posture partagée aussi par FRAPP et bien d'autres mouvements frères. Et dès qu'on a, dès qu'on a sorti le communiqué officiellement, le mouvement Y'en pour dire cela, tous les Sénégalais ont vu, ça a été diversement apprécié d'ailleurs, parce que pour certains, non, Et non, non, il y en a marre à Certains ont eu cette lecture-là. Mais c'est chemin faisant qu'ils ont compris pourquoi est-ce qu'on avait, on avait fait ce choix-là. Et après avoir fait ce choix, dara umpalewuñu sur tout le processus des enquêtes. Dès que Kilifa est arrivé à la DIC, de la DIC au parquet, rien ne nous a échappé. Parce que des avocats ont été commis et ils étaient là pendant toutes les auditions. Et je n'ai pas besoin de revenir sur les auditions. Mais ce que je vais dire, la première chose, le premier fait qui nous a marqué dans ce dossier, c'est quoi C'est qu'au bout des enquêtes, Kilifa et Simon ont été acheminés au parquet. Quand ils sont arrivés au parquet ce jour-là, je pense que c'était un lundi, un mardi. Euh, au bout de quelques heures, ils, nos avocats ont été informés du fait que le dossier allait passer en flagrant délit le jeudi qui suit. Ce que nous avions accepté. Parce que nous estimons quand même qu'il était important que Simon et Kilife viennent devant la justice avec leurs avocats pour se défendre parce qu'ils ont tous les éléments qu'il faut pour se défendre dans ce dossier-là. Mais en un clin d'œil, en un laps de temps, les choses ont changé. Et vous avez vu, Kilife, qui était de la DIC, avec le chef d'accusation de euh, escroquerie, sans escroquer d'ailleurs, parce que personne n'avait fait de plainte pour dire que Kilifa m'a escroqué. Et certainement, quand ils ont vu ça, ils se sont rendus compte qu'il fallait, fallait éviter le Sénégal. Dans, en fait, il ne fallait, il fallait pas qu'on qu aille vers un procès historique avec quelqu'un qui est euh, euh, accusé d'escroquerie sans escroquer, sans plainte en escroquerie. Et vous avez vu après toute la batterie de chefs euh, euh, d'accusation qui s'en est suivie. Le même jour, on est parti de flagrant délit à dossier. Le dossier est mis en instruction. Ils ont été mis sous mandat de dépôt. Donc on a tous suivi ça. Et on a vu aussi que... Parce que d'habitude, sur les dossiers en instruction, ce qui fait que c'est long, c'est que le juge d'instruction, parfois, il peut mettre jusqu'à six mois pour entendre en fait les mises en cause. Pour Kilife et Simon, au bout d'un mois, ils ont été entendus. Et quand on les entend sur le fond du dossier, après, il faut tout de suite un procès, ou bien on les met en liberté provisoire du moment où ils présentent les garanties à la justice de pouvoir bénéficier d'une liberté provisoire. Et tout de les avocats de Kilifeu et Simon ont fait le nécessaire pour présenter toutes ces garanties. Kilifeu et Simon sont régulièrement domiciliés à Dakar. C'est des personnalités connues et qui avaient présenté toutes les garanties pour que, après avoir été entendus par le juge d'instruction tel que la loi leur permet, qu'ils puissent être mis en liberté provisoire. Et vous avez vu, on le leur a refusé pour une première fois. et la requête a été introduite au niveau de la euh, chambre d'accusation et vous avez vu tous deux présentent toutes les garanties pour y bénéficier. Simon, il a en plus son dossier médical. Et aujourd'hui, euh, vous voyez le développement, c'est que Simon a été mis en liberté provisoire et Kilifa a été retenu. Et parlant de Kilifa d'ailleurs, je, vais vous, je vais vous informer que cette justice-là qui est très, très, très, qui est très, très, qui, qui, qui, qui sait faire du fast-track quand il faut convoquer Ousmane Sonko, cette justice qui sait faire du fast-track quand il faut convoquer Kilifeu Simon et puis accélérer les enquêtes, après on les met sous mandat de dépôt, cette justice qui est très, très rapide quand il s'agit d'arrêter Guy Marius Sagna, le Sénégalais lambda et tout, et cette même justice-là, parce que vous savez tous que le fond de ce problème, le premier niveau de problème, c'est quoi C'est que Kilifa et Simon ont été mis sous mandat de dépôt sur la base d'éléments que le procureur avait et qui ont été collectés de façon illégale. C'est-à-dire les vidéos sur la base desquelles le procureur les a convoqués et qu'il y a eu tout ça, c'est des vidéos qui ont été collectées et diffusées de façon frauduleuse. Et Kilifa, en citoyen sénégalais il s'est dit tooñ nañ ma le jour il est arrivé au parquet ses avocats et lui ont préparé une plainte qui a été déposée à la cybercriminalité pour que non seulement Thierno qui est à la base de ces vidéos là la personne qui a pris la vidéo du téléphone portable de Thier pour remettre à leral.net que cette personne là aussi soit identifiée et elle est en train d'être protégée actuellement et puis que leral.net aussi puisse répondre de ses actes. La plainte a été déposée. On pour un activiste Ousmane Diagne, en une fraction de ce, en, deux, en, en 24 heures, il a été pour un poste qu'il a fait sur Facebook. Et beaucoup d'autres des postes, en quelques heures, ils à la brigade de la cybercriminalité. Certains sont mis en garde à vue, certains sont inquiétés, certains sont sous contrôle Mais pour le cas de Kilifa, c'est mois après que Kilifa a été convoqué au niveau de la cybercriminalité. Pour faire quoi Juste pour lui dire, est-ce que tu euh, confirmes ta plainte Ce qu'il a confirmé. Depuis lors, ça fait encore plus d'un mois. Depuis lors, ça fait plus d'un mois. Rien n'a bougé. Thiers n'a pas été extrait de cellule comme Kilifa l'a été. Euh, Leral.net n'a pas été convoqué et rien n'a été fait pour identifier cette personne-là qui est en train d'être euh, protégée, qui a pris les éléments du téléphone de tiers pour les remettre à l'RL.net. Est-ce qu'on peut parler de justice Et l'autre chose, sur le dossier de kilifa justement. Aujourd'hui, il est clair. Et si vous voyez, Yanamar n'avait jamais eu un discours comme ça pendant tout ce dossier-là. On s'est abstenu d'avoir ce genre de discours, le temps de voir ce qui se passe, le temps de voir tout le process et de voir. Mais au bout de tout le process, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que Skilifa est un citoyen sénégalais. Le juge d'instruction l'a entendu. Il a présenté toutes les garanties pour bénéficier d'une liberté provisoire. Mais aujourd'hui, il reste en prison parce que c'est kilifa qui a son opinion qui a son ses combats qui a sa voix qui crie et c'est ça le problème kilifa est devenu il est devenu otage d'une justice revancharde qui est manipulée par la politique pour garder kilifa en li en détention pour que ça serve d'exemple vu les échéances vers lesquelles nous allons c'est ça le problème et c'est pourquoi nous avons dit qu'il était important de parler de ça mais au-delà de ça de parler de notre justice encore yoon a ngi jeng mais vous voyez le dossier avec les députés qui ont été euh, euh, cités sur l'affaire des passeports diplomatiques présumés impliqués dans cette affaire de passe moi j'ai jamais vu l'Assemblée nationale du Sénégal respecter autant les droits de députés qui devaient faire l'objet de levée d'immunité parlementaire on a vu avec Khalifa Sall On a vu ce qu'ils ont voulu faire avec Ousmane Sonko. Mais pour une fois, les députés, ils se soucient même de, de, de, de la réputation de leurs frères députés, parce qu'ils font partie du, de Benno Bokoyakar. Depuis quand ce dossier a été ébruité Jusque-là. Et ne parlons pas de Bougazeli, qui a même peut-être qui a failli avoir caressé l'ambition de se présenter à la mairie de Guédiawaye. Et Kilifa, il croupit en prison parce que c'est Kilifa de Yanamar qui a ses opinions. On a vu Marius Sagna qui a été arrêté placé en, sous mandat de dépôt. Il a été en prison pendant un mois juste pour avoir fait une lettre où il donne son opinion sur sa gendarmerie. Et une opinion qui est fondée sur des faits. Parce que tout le monde a vu Guy Marius Sagna et d'autres camarades de frappe être, être malmenés à Malikunda sous les yeux de notre gendarmerie, sans que rien ne soit fait. Ils collectent toutes les preuves matérielles, des vidéos et tout. Ils sont allés jusqu'à avoir des noms des individus qui se sont attaqués à eux. Ils ont déposé plainte auprès de la brigade de recherche. Frappe a été entendue. Jusque-là, c'est rangé aux oubliettes. Est-ce qu'on peut parler de justice Et tous ces Sénégalais qui viennent nous voir tout le temps pour nous parler de notre justice. Et si vous voyez, il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui soutiennent le mouvement Yanamar, qui croient au mouvement Yanamar. Mais quelque part, quand ils ont vu les vidéos de Simon et Kilifo, ils ont été atteints. Ils ont dit, ah non, on ne devrait pas les voir dans ces postures-là et tout. Mais chemin faisant, tous ces Sénégalais sont écœurés par la, ce dossier, la manière dont il est en train d'être piloté et quand ils font le parallèle avec des dossiers qui impliquent d'autres qui sont proches du pouvoir, comment est-ce que c'est géré Et ce que je voulais dire pour terminer, c'est qu'au-delà de Kilifa, il s'agit de notre justice. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez même sur le climat politique, avec des opposants politiques qui sont attaqués de partout, avec des commissaires de police qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont mandatés ou en tout cas qui sont... Vous, voyez tout ce qui se passe. Tous les Sénégalais en émeuvent. Personne, aucun Sénégalais n'est content de notre justice. On parlait jusque-là de la rupture de confiance entre la justice et les Sénégalais. Mais aujourd'hui, c'est devenu pire. Parce que les gens n'essaient même plus de sauver les apparences. Et c'est ça qui est grave. Et nous allons vers de grandes manifestations sous le slogan yoon a ngi jeng au-delà de kilifa il s'agit de notre justice et de la problématique de notre justice euh, je vais commencer par la question de mon frère Malan de de de Senenews pour dire que il n'y a pas de médiation c'est un dossier judiciaire Kilifeu remplit toutes les conditions du point de vue de la loi du Sénégal pour qu'ils puissent obtenir une liberté provisoire. C'est une question de principe. Donc il n'y a pas de médiation possible sur ce, sur ce dossier. Et ça, c'est clair. En tout cas, Yanamar ne va initier aucune médiation parce que tout ce qu'on dit, c'est fondé en droit il est fondé en droit que Kilifeu a présenté toutes les garanties pour que une justice indépendante et non partisane partisane puisse lui euh, accorder la liberté provisoire en attendant que le procès n'arrive donc ça c'est ça c'est clair après c'est la question de Moussa de Imedia ça me permet de revenir sur des éclaircissements c'est très important c'est bien que vous ayez reposé cette question-là Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup qui créent l'amalgame entre le dossier de, euh, des députés qui sont présumés cités euh, sur une affaire de tra tra tra trafic de passeport diplomatique et le dossier Simon Kilifa. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand Kilifa a été convoqué, la première chose que les enquêteurs ont voulu établir, parce que 24 heures avant, ce dossier des députés avait éclaté. Ils ont tout de le lien entre Kilifa et les députés parce que dans la vidéo concernée, ils ont entendu Kilifa parler de passeport diplomatique. Et en deux heures, ils ont écarté, ils ont écarté cette thèse parce qu'ils ont vu qu'en dehors de ce que Khalifa avait dit dans la voiture, qu'il n'y avait pas d'éléments qui puissent permettre de le poursuivre sur une affaire de passeport diplomatique. C'est pourquoi d'ailleurs, même vous, la presse, vous en avez fait état. Quand Khalifa a quitté la DIC, on avait dit chef d'accusation, escroquerie. Donc il n'y a pas de lien possible. Il a été établi. Et, donc vous voyez, tout ça c'est pas que nous, mais tous les Sénégalais voient la manière, la lenteur avec laquelle les gens sont en train de, de traiter ce dossier de ces, euh, de ces députés-là, de la mouvance présidentielle de Benno Bokoyakar. Je ne parle même pas du dossier Kilifa, mais quand vous faites le rapport, le parallèle avec des dossiers qui ont mis en cause d'autres députés qui étaient à, à, au niveau de l'opposition, vous avez vu, avec, avec Sonko, c'est l'erreur d'ailleurs qu'ils ont commise en fast-track Ils ont voulu tellement accélérer les choses qu'ils ont violé ses droits en tant que députés. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec les députés de Benno Yakar, avec la même, la seule et même justice à deux vitesses, à géométrie variable selon la tête du client. Oui, on est vraiment pour euh, Serine on est vraiment Pas plus tard que là, j'ai eu Maître Sarr et c'est l'occasion de, de, remercier tout le poule d'avocats euh, qui s'occupe de ce dossier depuis le début, hein, qui, euh, qui, est coordonné par le Maître Moussa Sarr, mais où il y a euh, Maître que tout le monde connaît, où il y a Maître Bamba Sissé, où il y a Maître Tal, où il y a Maître euh, Danfaha, où il y a Maître euh, de, de Thiès, là, Fatih. Fatih de Thiès. Et puis, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a Alfred Kabou, un, un, concitoyen sénégalais qui a appelé aussi, qui veut, qui veut, qui veut, qui veut intégrer. Et puis, il y a tellement Maître Cyril d'Orly, et puis il y a tellement d'avocats, de juristes qui veulent tous être dans ce dossier-là. Maître Khouré euh, c'est l'occasion vraiment de saluer tout le travail qu'ils sont en train d'abattre. Donc on est en parfaite synergie avec eux et c'est eux qui nous ont présenté. Moi, j'ai vu les conclusions, j'ai la décision de justice qui est sortie de la demande de liberté provisoire. Quand on te dit que si Kilifa sort euh, et Simon, il y a un risque de trouble à l'ordre public. Est-ce que là, Simon est en train de troubler l'ordre public Mais soyons sérieux quand même. S'il y a quelqu'un peut-être que c'est Bougazeli. Donc c'est pas fondé. C'est pas fondé et c'est objectivement qu'on pense qu'il y a tous les éléments qu'il faut pour que Kilifeu et Simon euh, puissent bénéficier de liberté provisoire. Alors, pour les manifestations, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va vers de grandes manifestations sur la problématique de notre justice. Maintenant, on est avec beaucoup d'autres acteurs. Il y nos frères de frappe, il y artistes, il a la société civile, il y a beaucoup d'autres organisations qui se préoccupent. Et les Sénégalais, globalement, de la problématique de notre justice. Donc, euh, dans les jours à venir, nous avancerons sur... À, on en parlera, mais il y aura de grosses mobilisations sur la question de notre justice à deux vitesses sous le slogan Yonangi Ça, c'est ça. Ouais, eh oui, des mobilisations des marches partout. Ouais. Et, et l'autre chose, ça me permet de répondre à la question qui dit pourquoi on a attendu maintenant pour parler de Yonangi Dieng Parce que ça concerne des frères à nous. Allez googliser, allez taper sur Google. Vous verrez que ce slogan de Yonangi Dieng a été lancé par le mouvement Yanamar en 2013 ou 15. 2015, quand on s'est aperçu que les jeunes de Colobane qui avaient été injustement arrêtés sur les événements de 2011, qui ont été lourdement condamnés à tort, étaient en train de croupir en prison sans que personne n'en parle, de tous ces acteurs qui étaient dans la lutte citoyenne en 2011 contre la candidature d'Abdoulaye Wade. C'est là que Yann Amar avait lancé le slogan Yonangi Djeng. et on avait fait des mobilisations et on a vu après les jeunes de Koloban euh, avaient, le dossier avait été encore réouvert, le, le, jugement a été fait en appel et ils ont été, ils ont été libérés. Donc on n'a pas attendu aujourd'hui pour dire Yon Nguyen. Non seulement c'est un slogan qu'on a lancé, on s'est battu pour d'autres qui ne sont pas de Yanamar, mais on continue de le dire. Et tous les Sénégalais crient ce Yon Allez sur les réseaux sociaux, allez partout dans les maisons dans les quartiers dans les boutiques dans les marchés tous les Sénégalais crient sa yoon a ngi jeng la et c'est l'occasion quand même de pouvoir à travers des manifestations pacifiques partout que ce soit à Dakar et ailleurs pour quand même euh, se mobiliser euh, contre cet état de fait là il y a Doudou Doudou qui demande si Leral est indexé non c'est des faits c'est des faits collecte diffusion de données à caractère personnel. C'est l'ERL qui a, qui, diffusé. C'est ça, moi l'ERL ne m'intéresse pas. On n'a rien contre l'ERL, rien. Mais il se trouve que l'ERL est le média qui a diffusé en fait ces vidéos qui ont été collectées de façon frauduleuse. C'est juste ça. Mais à titre personnel, moi j'ai rien contre l'ERL. En tout cas, le mouvement est en a marre. sur comment, je pense qu'on l'avait dit, il y a quelqu'un, en fait, il y a un, il y a une, il y a un élément central qui est sur la question de la vidéo. Comment ça a été pris dans le téléphone de Thiers alors qu'il était déjà arrêté, soit en garde à vue ou dans les liens de détention à Rebus Qu'est-ce qui a pu extraire ces vidéos pour faire en sorte que l'RL.net puisse en disposer Il y a un élément du puzzle qui est en train d'être protégé actuellement. Ce n'est pas à nous de dire, parce que nous, on a des choses très claires sur ça. Il y a quelqu'un qui est en train d'être protégé. Et c'est ça. Une personne Une personne qui est en train d'être protégée dans cette affaire. Du pouvoir. Il y a une personne qui est en train d'être protégée et la justice, la police du Sénégal, à travers la brigade de la cybercriminalité, doit quand même, au bout de deux mois, faire du fast track comme il, elle sait le faire. pour que cette personne soit identifiée et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Et vous savez d'ailleurs, ça c'est autre chose. Il y a un des avocats de Thiers qui, a, quand il a peine intégré dans ce dossier, euh, pour la première audition, c'était lui qui était avec Thiers pour l'assister. Mais à un moment, il est allé voir le juge d'instruction pour lui dire, moi je me désiste parce que je vois tellement de choses bizarres dans ce dossier de manipulation. Moi, je sors de ce dossier, je ne peux plus continuer à euh, assister Thiers.